li ci des grand combat bi la dañuy dugal parrain bi muy musaa Niane su ko defee moom mu ñëw ayca dugal leen parrain bi ana sama waa ji tey ma di la jóobe ndaanaan ndaanaan les kay yoon ma ku bi ay bugaan gi dani li ni nga we doomi dani yaa iti yow Moussa Ndiaye borom la 17 wóolu na wóolu na yàllaay borom jaam ni buri buri dama la wóolu buri buri laa doona Musa waxal yaay gay ne mburu di njaay yaay gay ne mburu di njaay

ñu ngi ci grand combat bi dox ci diggante boo yëmbal ak xale bi di Mbaye Tine numéro 2 drapo musa Fall Moussa ñaan mu nekk nit koo xamante ni nitu petit la ndax yaakaar naa ni nit ku la tuddee bis xeebu la cofu la bëgg na la bëgg sa jikko bis bi la petit dugal tuddee ban yëg-yëg nga ci am Moussa ñu ngi lay waaw ñu ngi nuyu ñi fi toog ñëpp comme assistance bi muy mbëri ak ñi nga xam ñoom lañu àndal di ci commencé ci petit le promoteur bi nga xam ni moom moo misé ci ay moyem ak ci effort ba taxawal lu mel nii ak ñi nga xam ni ñoom ñooy couvrir événement bi muy la presse di nuyu ñëpp di am impression bu neex ci bis bii nga xam ni moom la ñu dëtmal muy le 17 di ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm ndax sport rawatina làmb dafa nekk sunu cosaan dafa nekk sunu aada dafa nekk sunu culture te dafa nekk loo xam ne dañ ko war a mën a promouvoir kon nag bu ñu amee ay jeunes yoo xam yàlla def na ci ñoom ñu bëgg làmb ñun duñ def lu dul taxawu leen duñ def lu dul accompagner leen accompagner ki nga xam ne moom mooy promoteur bi nga xam ne tey moom moo waral bés bu màgg bii. nan nga fas yéene ànd ak petit ak bisu làmb ja lan lañ mën a xaar ci parrain waaw parrain bi comme ñun làmb dafa bokk ci ñu sport favori dañu nekk ñoo xam dañoo bëgg làmb ni ñuy accompagner petit mooy. dinañ ànd ak moom ci lépp loo xam ni loolu la laaj pour bés bi mën a réussir ñu ànd ceeg moom ndax làmb au-delà du divertissement dafa nekk vecteur boo xam ni dafay transmettre message dafa nekk sport boo xam ni dafay yar dafay éduquer mais également dafa nekk sport boo xam ni économiquement dafay développer réew kon lu mel nii boo gisee koo xam ni daf ciy taxaw di ci investir boo bëggee see war nga ci mën a jàpp loolu moo waral tey ñu accompagner ko ci bés bi di fas yéene wéyal liggéey bi ba bale di set incha allah ñaari xale yi ku ne xam na ni mbooloo da leen di topp lan lañ mën a xaar ci wàllu jàppale ci parrain bi bolog yi bi yi ndax mbër moom loo wax mën a la jàppale ma ci bolog bi billet. waaw bëre ak jàppale ñoom ñoo ànd ndax ku ne xam na làmb ni mu mettee ak surtout ci jamono ji nga xam ni moom la ñu toll ndax euh, boo xoolee ay at ci ginnaaw làmb gënoon na am effervescence nit ñi daan nañ ci gën a dugal seen doole sponsor yi daan nañ ci gën a yëngu mais jamono jii li ñuy mooy. sponsor yi dafa mel dañoo xaw a reculer tuuti autorités yi aussi dafa mel dañoo xaw a reculer dañoo xaw a génne seen loxo ci làmb ji waaye ñun li nga xam ne moom la ñu yàlla jàppale ci man-man daañu ko séddoog mbër yi nga xam ni ñoom ñoo war a sekk bés bi muy boo yëmbal ak yi nga xam ni moom mooy euh, ñu ngi koy waxatee mbaytin mbaytin 2 bu ko defee yàlla def que le meilleur parce que jàpp nañ ni kenn du ci perte waaye làmb ci boppam moom mooy gagné bis boobaa le 17 incha allah. jërëjëf am na solo soxna si tey ban yëg-yëg nga am ci bis bi nga xamante ni petit da koo jël dara jaale ko ki nga xamante ni mooy sa lépp. sant yàlla rek. fas yéene koo rek. da di set ñu ñëpp rek daal di ñëw rek dooleel ko incha allah. tagal yi dina fa bari. incha allah waaw. musóoru 3 mètres. yomb. Oh, waaw macha allah. Ndeysaan nee na musóor du fa yomb boo yëmbal ndaanaan champion nekk xale boo xamante ni vraiment bu jugee yëmbal gépp dañuy jóg ànd ak moom. Ndeysaan mu nekk nit koo xamante ni vraiment champion la ci làmb. yaakaar naa ne fan yi ñaari kombaam mi mujj sax neexlewu ci sànq euh, ba Babacar mu ngi koy wax ci diggante nee na benn ya yaa caat ki xeeru ngor ah <laughs> auzubillahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli ci leen doomu teer bi di sant suñu ñaari waajur bu wér di sant suñu sëriñ Seydi Aboubacar si yàlla yàlla yokki leeram te taas ci barkeem di nuyu ñu fi teew ñëpp ak sama moroomu mbër yee nga xam ne ñoo jóge ba yëmbal mënoon nañoo dem waaye ñu toog di xaar seen doomu ndey maa ngi leen di ziar di leen ñaanal seen combat bi ñu jëm yàlla nañ ci am ndam te am naa yaakaar waaw comme li nga waxee rek man ci quatre victoire laa jóge Mor Kankang moo ma daan Mor moo la daan. waaw sama dernier combat bi passé. yaa xeeru ngor nu mu demee. maa xeeru ngor xam nga li may wax sa guur rek loolu bugguma sax di ci wax. ah mais recours dafa amul ci diggante bi. ma ne recours boo yëmbal ak xeeru ngor boo yëmbal moo am ndam ci kaw xeeru ngor ndax maa ngi yor sama drapeau ba tey te man lañ jox ndam ci biir géew. mais recours ba lu mu la wax. recours bi déggoo li ma la wax de. moom bu amee. de règlement nag dafa am lu ko lié bu dee recours bi dafa génn xeeru ngor am ndam xeeru ngor moo am ndam. xam nga ay recours indiwuma ma fi mbaytin moo ma fi indi danga ma laaj te dama laa tontu boo yëmbal moo am ndam ci kaw xeeru ngor moom lañ jox ndam te moo yor drapeau am na solo sa diggante mbaytin lan moo la dugal ci mbaytin ak adversaire bi ñëwul te yaa ngi jëm le 17 nan nga fas yéene préparé ak waa yëmbal yëpp rawatina Matar xam naa ni fi mu toll ni lekkatul naanatul waaw li may wax rek combat bi dama ko soxla hmm. ndax wax naa ko léegi dama jugee ci 4 ñëw sama dernière sortie moo juum te nit nag boo juumee da nga war a ñëw wane ne man dama juumoon sama combat bi passé te incha allahu rabbi sama adversaire xaw ma lan moo tax ñëwul waaye maa ngi koy ñaanal jàmm yàlla na doon jàmm parce que jàmmam mooy sama jàmm ndax bu amee jàmm ma am jàmm mooy tax le 17 juillet ñu mën a jëflante kon maa ngi koy ñaanal jàmm xaw ma lu ko teree ñëw nag waaye waroon naa ñëw ñu neexal fii hmm. waaw dafa boo fas yéene jëflante ak moom le 17 waaw wax ji du bëri parce que ku ne xam na ni ndaanaan la mbaam bi mujj dafa juum diggantam ak dab daan waaye ndaanaan la ci la xam nga wax balaay neex hmm. nga jàkkaarloo ki nga war a jëflanteel boo ko dina toll non yow man xam naa li nga bëgg rek <laughs> te loolu du ma ci dugg hmm. li may wax rek avant tout damay remercier ñi nga xam ne tey ñoom laa àndal sama doomu day ku ci mel ne Matar Bamba si yaa salaamu laas moo ak talaa mële saa yu ma geesoo rek seen leen sama wet wax dëgg yàlla dama leen di ñaanal jàmm ju bëree bëree bëri combat bi dañuy woote parce que combat waa yëmbal la su ma nee combat waa yëmbal la nag Ibama dafa war a fees te yaakaar naa trois mbër yoo xam ne dañuy jógee gox boobu ñoo fay bëre te bëgg nañ stade bi kenn bañ ñu faa ëppale dara kon nag dañuy woo autorités yi nga xam ne ñoo nekk yëmbal su ñëwee autorité nag dañuy wax Modou Mbène Diop doomu Dame Diop Mansour parce que saa yu ma geesoo rek seen ko sama wet ku may soutenir la ñu ngi koy woo ci combat bi nañu ñëw soutenir ñun ay doomu yëmbal lañ dañuy représenté yëmbal drapeau yëmbal la ñuy faydal xam nga maa ngi koy woo ci i bi Moussa Guissé Séeri May maa ngi koy woo ci combat bi ministre ot yaakaar naa gis nañ ni muy soutenir tamit axlu képp koo xam ne rek dëkk nga yëmbal gis nañ ni mu lay soutenir maa ngi koy woo ci combat bi moom ak madame Ott yëpp ñoo ngi koy woo ci combat bi bàyyi wuñ ko hélas combat bi sa combat la yow xam nga man xam naa xam nga di woo képp koo xam ne rek autorité nga te dëkk yëmbal ñoo ngi lay woo rawatina nak sama waa dëkk waa Kobangoy Samba Dia Fadial Fimela xam nga waa Gambi sama grand Mansour maa ngi koy ziar bu baax waa Gambi ak ñëpp ña fa nekk parce que waa Gambi dañoo war a jógee ba ñëw ci combat bi mm. incha allahu rabbi maa ngi leen di woo ñëpp nag di nuyu ñëpp. ayca jërëjëf ñu joxante loxo gaa yi am photo.